mbokku téléspectateurs yi noo ngi am mbégte di àddu ngeen di teewlu ci seen télévision Equivox TV boo leen ma xoolee tey mbokk yi maa ngi taxaw ak ñaari champion yoo xamante ne deesu leen présenté ci làmb amaa gauche maa ngi am ki nga xamante ne moom mooy caatu ngéwél nekk écurie yoof ba ma juumul dëkk yoof moom caatu ngéwél gis ngeen récemment li nga xamante ne def na ko euh, ci làmb bi mu ñëwee yàggul dara 2016 waa làmb ji bàyyi ko xel à maa ngi ki nga xamante ne moom mooy alliance biram moom it nekk écurie bawal dëkk ba fi nga xamante ne moom mooy yëmbal moom it mu nekk xale boo xamante ne bu bëree njarndéem la mbokk yi Vox Arena di label international organiser ay événement yu mag a mag daal di nekk ci logique gu g looloo tax Vox Arena daal di tëgg njarndéem bi daal di ko ci boole. yaakaar naa plateau bi ma mujj def waxoon naa la ni wala waxoon naa leen ni daañu ñëw ci ay affiches yu am am solo yoo xamante ne bu ci nekk mën na nekk grand combat yaakaar naa tey confirmer nañ ko combat bii rek doyoon na ci grand combat alliance Birame Thiatou Nguéweul Vox Arena daal di ko boole ci G5 un gala cinq drapeaux mën nuyu alliance alliance salaamaaleykum. waaw ah, di wax onze billah bismillah inna yàlla jëfe jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba eh, yàlla rek ay dëgg te mooy boroom dëgg moom mi jox Bamba dëgg ba tax Bamba signé maam Bamba ne salaamun alal ma ni tabalu huda jërëjëfe Serigne Touba maa ngi lay fay bu baax. ñu gis ni Vox Arena juboo ngeen pour ngeen bëre sa diggante ki nga xamante ne moom mooy caatu ngéwél lu tax nga jël caat. waaw ah, di wax balaa loolu rek di sant yàlla di julli si yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di gërëm suñu wasila suñu sëriñ muy sëriñ Basir Fall alxuraan. waaw di waajal nag Baye Fall yëpp ñu waajal mercredi ngërëm la bis bi Serigne Touba gërëmee maam Serigne Fall mul Touba amul xuraa Baye Fall ba ñu koy waajal mercredi bu baax di si siyaare tamit njabootu Cheikh si Fall alxuraan bi yëpp ak njabootu maam Serigne Fall bi yëpp. waaw di nuyu tamit suma waa koñ muy fi nga xam ne fa laa juddoo fa laa yaroo màggee muy yëmbal bi yëpp. ma siyaar la caatu ngéwél moom it comme ni ma ko waxee bi mu ñëwee ci làmb yàggul mais yaakaar naa prouvé na fi ba am respect euh, ci amateur yeeg ñëpp caat maa ngi siyaar Eh, Soxna Omar ñu ngi lay fay di sant yàlla di julli si yonente bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaanal sama yaay yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba mu fekkee sama njariñ di ñaanal sam papa fu mu tëdd gënal ko fi mu jógee di ñaanal yàlla def si bàmmeelam leer bu bari doole incha allah. li ma ko laaj laa lay laaj lan moo tax ñu doxal ñu dox combat yu bari ñu dox sa combat yu bëri mais nga choisir ki nga xam te ne moom mooy alliance. waa xam nga tey jii nii moom. li nekk ci xelam lay wax maa ngi ko dégg mu naan ay caatu ngéwél du woon maag moom proposé ngeen maay adversaire adversaire yi ngeen ma proposé ñoo ëpp kii tur foof te si man la yaaxoo alliance bi doom instant yéen toll nii maa ko gën a nekk si bi daa wàcc tali bi. daa wàcc tali ci tali man damaa nekk si bi si ay dynamique de victoire laa toog kon kii lan la ma mën a may. mu am sept victoire kii kon kii lan la ma mën a jaay. alliance bi doom li ma koy dénk mooy leen barki alxuraan caméra laa tim bu taxawee ma fekk ko menacé ko duma ko daan ko. doo ko may bu taxawee laa la ma fekk ko fi mu taxaw moom mu ngi nii dama koy duma dama koy daan bu soobee yàlla. fan nga ko teg. dama ko man Cheikh mar man du booy yi làmb lu muy gën a dem ñuy gën a xam caatu ngéwél. di déggoo ma ñoom ñëpp dinaa leen dinaa leen jàpp wër leen ba jeex tak sama ay moroom lan te xam naa ne li ma leen daaxee bëre kenn xamul lu mu doon. saay dégg nga sa waay. non sa waay sa daa kontaan rek sa waay ma relation ak moom. kii nag xool ñi mu bëreel ak ñi ma bëreel. caat lu la waay wax dégg nga ko déggaan nga ko lu la waay wax lu dul yaa ngi am a am wax waxuloo dara. barki maam Serap Fall yow dama laa laaj léegi sànq laaj naa la ko boo may daan noo may daanee fooy jaar pour daan. nga lay laaj fan. yow bu dee doole maa la ko ëpp. bu dee bëre maa la ko dàq. bu dee xeex maa la ko def bu dee capable maa la gin a pare yow foo may jaar. c'est Omar kii déggoo ma lu leer laa lay wax kii amul bëre barki alxuraan amul bëre kii manul dara alliance birom amateur yëpp li ñu ko meree moo bulldozer ñëpp ko moo tax arbitre bi muy joxe victoire koo jéppi amul sidde arbitre bi muy jox bulldozer victoire da koo jéppi ndax daa taxaw jël tànkam bi lal ka taxaw di ko xaar man bu tegee tànk bi tànk bi laay jël si ñëw def si li ma si war a def. sañ ngaa jël tànkam. barki alxuraanul karim barki sëñ Fàllu bu taxawee teg tànkam ma duma ko jël tànk bi daan ko si si gaawaay sax du débat ay alliance bulldozer ay bulldozer daa ragal a jël tànkam bulldozer amaana mbër la mbër laa man ñëw ma fi tey pour albi désert bëri nañ def na sans verdict après. mu ngi yoon wax nee na daa ragal a jël sama tànk yow ñëwal jël ko. boo demoon si buusi kii xoolal maa moom. kii moo gën a doon géant barki alxuraan te instant boo bëggee dégg dëgg de. kii newaguma woon sax si moom kii bu ma newee si moom xam naa ne xajuma si kawam. kii bu combat baa bu si meekoo ma si meeku di nga xam ne lii du combat man ak moom bokkuñu man xale gis nga sunu borom xam nga leen yow doo nit koo xamante ni amoo téeméeri at mais naan nga si téeméeri robine boo xoolee kanam ak alliance gi xool sama kanam xam nga ki gën a doon xale. mais yéen a duggandoo ci laal sérieux noonu wax eh, yow dañ lañu xool man ak yow di wax man ak yow ay waxi xare waaw man paalaa garaawul waaw man paalaa coojuwul nga bëgg ko nga bañ ko bu boo taxawee dama la caat man ay di nga taxaw xam nga man yaa ngi may dugal si game bi boo xam ne man game di taxaw di nga taxaw parce que game bii nga may indi man du sama game ay tësante man Serigne Touba Serap Fall man après leneen ça va man nekkuma si leneen. taalibe ay sëñ Cheikh Fall lan ay ngàccee lan ñun li ñuy wax njaabuñu bu dee Baye Fall noonu la demee. alliance kii li muy wax dafa alliance alliance alliance kii li muy wax dafa dëgg dafa ci plateau bi moo tax mu nekk fii di ratatati mais kii moom xam na kuy alliance. wax ji jàkk gàtt gàngoogu moom moo la gën a xam kuy alliance. kii xam na ma xam naa ko bu baax. kii man ak moom xamante nan bu baax a baax a baax. est yaa mooy dégg kii man moom xamante nan talu garaaw laa lay wax. kii ni ma ko ñimee musuma bëree mbër ñimee ko noonu ndax daa manul dara. nga ni lan manul dara. déggoo ma de lan moo tax mu foog ne dara yooyu dafa sori kii xamante nañ si Omar. buñ fi xamante plateau bi nii nga nekk fii takk micro yi booy. lay wax ay coow mu àndax beneen booyam man man tundum maa àndax ñoom ñu meew te boo leen ma songoon ma duma leen. man kon am na lu dox seen. yow daal lan moo tax lan mais alliance alliance waa lan moo tax ngeen ànd di ko jéem a sot non kii yooyu muy wax ay waxi deuxième la wax dëgg fa yàlla wax dëgg fa yàlla barki alxuraanu karim billaahi wallaahi wa taalaay jotewuloo nag man ma la doon waxal moom sama booy bi ñëw doon coow man dépassé naa foo moom moo sama booy bi maa ngi moom ñoo doon wax moo booy bi ñoo doon jote mi ngi nii maa ngi nii laaj ko ba xam man moom téyante nañ wala bu wax naa ko wala def naa ko dara non man kii ku ma fekkoon ba may ba may wax ak moom man maa ngi pare sama combat mu ñëw di ay am na affaire bu ma doon wax ñu daje stade benn combat xaw am na seen benn mbër bu doon bëree ay détails la yooyu amul sens quoi xamul ma la wax ni mais man nekkuma si moom di poñanteeg moom après ku ma fekk lu may wax. poñante daa war a jot sax day day jaay mayewul bis bu nu waree poñante di barki alxuraanul karim kii dama danaa prix ma noq la daan la. booy ku ma si jàpp bu ma la jàppee ba bàyyi la sa kanam day xonq cur. nga ni ku ma si bàyyi laa la wax. dama lay dóor ba sa kanam. du xonq lii laa la wax lii. lii ngay wax lii boo ñun dañoo pare booy ñun yëmbal lañ dëkk ba fu mu gën a xootee koo booy yooyu ngay wax nii jéemal a dëkk fooyoo lébu bi lébu xanaa xam nga ñëpp xam na luy adresse lébu mais sa waay nee na yëmbal la dëkk ay yëmbal dama fa miin yëmbal 4 victoire laa fa am daan naa fa 4 mbër barki alxuraan 4 victoire kon yëmbal man dama leen miin yëmbal damay daan ba daan maire yi manu si damay daan ba daan maire yi anandam bi yow say morom sa beneen moroomu góor yàllaa ngi nii non man ay victoire sax xaw ma kum fa daan man xaw ma kum daan man man xaw nga petit ba booy xam nga caatu baay xam nga booy jóob daan naa fa kat mooy alliance birom daa benn wax ko waa làmb ji daa rëy yow da ngaa rëy mbër da ngay yemale sa bopp fa nga yem day ñëw di ñoot di loo xamante ni moom nekkagul si moom gis nga ñun ay xale lan danoo gëm bopp suñu liggéey la ñuy def duñ si ñoot di si sagu kii daa kii daa bari ñoot di kii booy booy boo waxal xam nga lu ma lay wax ak rëy mbër loolu baaxul loolu baaxul da ngaa rëy mbër quoi may ne amaana man wóor na Serigne Touba Mbacke ba ma ak lépp lu may ut si yoonu ko Serigne Touba yàlla a dégg doxu man bu dul milieu làmb laa la wax si Omar yow doo dox ba gis ma man bu dul milieu làmb taluma yooyu noonu man chaque jour naay mën a dund Serigne Touba Sèye après jeex na làmb lii moo ma si boole lii mbokk yi gis ngeen li nga xamante moo dox ci diggante alliance ak caat donc combat bi eggaguñ ci mbokk yi gis ngeen ni combat boo xamante ne ñoom ñaar ñëpp bëggante nañu parce que niñ ko expliqué am na lu dox seen diggante mais kenn ku ci nekk ñoo tolloo nombre de victoire hmm, te war nañoo taxalee te xam nga ne alliance mu ngi ñëw 2015 ci làmb ki nga xamante ne moom mooy caat mu ngi ñëw 2016 ci làmb donc mu nekk loo xamante ne loo am am solo la ñu war a bëre ci li nga xamante ne moom la ñuy wax g cinq un drapeau euh, un gala cinq drapeaux nan ngeen gisee combat yi nga xamante ne Vox Vox Arena taxawal na ko Mama Lamine Garga 2 Franc Tyson 2 ñu boole leen ci nan gisee loolu. waaw loolu di ko rafetlu rek parce que wax dëgg fi luy yokk làmb la parce que journée yu mel nii gala yu mel nii ñëpp a ko doon xaar si làmb ak fi làmb toll. waaw di leen si ñaana rek yéen a xam li ngeen si bëgg yàlla ngeen si daje mbootum Serigne Touba. waa waa di profité di jégaluwaat di wax ni kër jàmbur moom boo fi ñëwee da nga naan te bi mu fàtte na ma nuyu waa Equivox di leen nuyu bu baax di leen wax ni doomu nit moom si lu mu dugg la ne bu yokkul lu ne daa wàññi te yéen moom wàññiwoo leen da ngeen yokk ñu ngi leen di ñaanal li ngeen xamante ni moom ngeen bëbët muy Garga 2 Mama Lamine Franc Tyson 2 yàlla defal leen si sutura bu baax a baax te am nañ si yaakaar bu baax. waaw li may tàggatoo mooy di rafetlu lii nii di la nuyu di nuyu waale caat ak suñu Baay Faal bii nii di ziare tamit suma benn grand boo xam ne. ku mun a ñàkk si man la muy grand Basir Koyaate wax dëgg fa yàlla muy sonn samay mbir lool lool lool lool nelawul yandoorul deful dara ndax alliance am combat tout le temps tout le temps mi ngi dox si loo xam ne lu muy bëggal la di ñaan yàlla nañu cat seexlu ba li nga xam ne bëgg na ko si man suñ borom defal ko ko di ziyaara tamit sama ménagère bi nga xam ne déplacé naa ko mu ñëw sama père Sewru di nuyu promoteur bi ak sama booy mandal Daawdu Balla Gaye eh, di 100 pour cent alliance bi yëpp maa ngi leen di bëggee ak suma benn mag Baye Sall xam nga Seydou suma waa kër ñëpp bàyyiwuma kenn ak suma benn gaan boo xam ne doon takk jabar àjjuma muy sama lépp muy ngañ ma déggan démb di bëggee waa ginnaaw raay tamit waa jàmbi réew di leen ziyaare bu baax waa Tësoo waa teen bi xam nga waa Samsam 3 di ziyaare farba bi tamit maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax di leen wax nañu waaj meeru Bambey wax dëgg fa yàlla amul lu mu dul daj si man as combat bi jógewul yow. non mais suma mère boobu suma mère boobu damaa bëgg nga jàllaleel ma ko de. d'accord wallaahi azim amul lum dul daj si man meeru Bambey muy Gana mbay man yëmbal laa juddoo laa yaroo laa màggee meeru yëmbal mënul si ñun cent franc. ñi mu woo ñëpp est di nga am place jouru làmb ji ci wàllu mobilisation ñi mu woo ñëpp tiitalu la. waa damay profité di waxaat ci leneen mooy si damay wax ay nii caatu ngi man sama làmb du sedd. amateur li ñuy xaar ci man. mooy yëngal signature xam na ni damay yëngal ba mu yëngu làmb ja ñëw may yëngal ba mu yëngu. affaire de mbër la gis nga bu ñu xasee ba signé contrat affaire de mbër la waa di di di nuyu sama gars yi ma àndal di nuyu Seck ndaanaan sama doomu ndey di nuyu Papa Sow Pël Layti Fay Rhone Omzo di nuyu Bébé Birahim sama grand frère sama lépp maa ngi lay nuyu bu baax Bébé Birahim di nuyu waa Yoff di nuyu sonu musula maire Ablaye Diouf saar mu ngi ñuy jàppale bu baax wax dëgg yàlla di nuyu ab dunaar Meng mu ngi ñuy jàppale Ami Toob Taala Meng xam nga kulim doomatal ay Père Ndiambi Diop di bëgg sama gars yi di bëgg mbayaar yëpp nag mbayaar yi mafia bi yëpp. bëgg sama yaay bu baax a baax a baax. yaakaar naa mbokk yi gis ngeen euh, li nga xamante ne moom mooy présentation bi am tey ci diggante ki nga xamante ne moom mooy alliance ak ki nga xamante ne moom mooy caatu ngéwél Vox Arena di label international daal di ko taxawal mu war a jëm ci gala bu rëy bi nga xamante ne moom la ñuy waajal muy G5 un gala cinq drapeaux mbokk yi ñu fas yéene cee euh, jóge daal di song li nga xamante ne moom mooy final eight loolu yëpp mbokk yi daañu ci gën a yaatal am na ay combat yeneen yoo xamante ne ay combat njarndéem la yoo xamante ne Vox Arena dana ko indi daal di ko taxawal mbokk yi ñu leen di fàttali rek numéro commercial bi di 78 188 30 30 mooy numéro numéro commercialu Vox Arena boo leen ñu bëggee jot rawatina yéen annonceurs yi 78 188 30 30 moom ngeen di def daan jot suñu commerciaux yi ñu euh, liggéey ak yéen liggéey bu mucc ayib xam ngeen ne combat bu ni toll munoo leen ko am fenn lu dul Vox Arena di leen jox dig daje très bientôt ci beneen numéro Vox Arena.